beneen xissaa ngi nii ci yonent bi sallallahu alayhi wa ci isaar mooy dafa am bis mu wecceeku dugg fu ñuy jaayee ab mbubb mu sol mbubb mi nekke noonu keneen ne ko yow yonant bi day sallallahu alayhi wa mbubb mi dama bëggoon nga jox ma ko mu daal di ko koy jox